ne Macky Sall li nga xam ne moom la ko constitution bi sant loole la Macky Sall jëfee amul leneen loo xam ne moo ci topp waaye nag Macky Sall bépp boo xam ne posé na ko maanaam ñun waa coalition Yewwi Askan Wi dañ siy bàyyi xel Habib Sy ci biir journal bi nee na Macky Sall ci boppam dafa am loo xam ne daf ko war a xam daf ko war a ndax organiser ay élection ci réewum Sénégal te Ousmane Sonko du ca bokk ci boppam moo munta nekk ndax jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci réew mi problème bi Ousmane Sonko élection 2024 waaye nag ñi nga xam ne ñoo am victoire maanaam mooy le peuple sénégalais askanu Sénégal ñoo am ndama ndax askanu Sénégal ñoo jóg taxaw jàmmarloo ak Macky Sall ba mu deltu ginnaaw ci mbir waaye nag émotion yi nga xam ne moo am ci réew a bàyyee Macky Sall moom la ko yoon sant loole la Macky def Birame Souleye Diop ci biir bi daan nay wax ne Macky ci boppam moom leeroon na ko ne su waxee ne candidat la askanu Sénégal ñooy wàcc jaar ci kawam askanu Sénégal ñoo na ko déeta loolee moo en bokk ci élection yi loolee méngowul ak dëgg kàddu yi Birame Souleye Diop la yéen kay gi de Le Quotidien yor yore xëy duñu xibaar naan ñu waa Ziguinchor ñoom nag nee nañu lu jëm ci bokkuk Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 loolee ak càkkutéef la goo xam ne askanu Sénégal ñoo ko sako sàkko yéen kay gi de L'Info nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom ba léegi ñoo ngi sëkkatal Macky Sall di ko ërtale di ko teg pression Macky Sall nag moom leer na ko ne su waxee ne Ousmane Sonko du nekk candidat Dakar du nelaw Sénégal du nelaw te Macky Sall moom taxaw na ne du candidat te dara yënguwu waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu Macky Sall dafa war a bàyyi xel bu baax a baax bis bu taxawee ci réew mi ne Ousmane Sonko doo candidat bu boobaa maanaam Sénégal kenn du nelaw yéen i kaay gi du l'Observateur xëy di ñu xibaar na ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom démb daan nañuy alerter nee nañu Macky Sall nee na du bokk ci élection 2024 waaye nag bu fi nekk di jéem a attaquer opposition bi danañu riposter te duñu nangu benn yoon muy éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 loolee mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu lekk yéen i kaay gi de Libération Birame Souleye Diop moom nag ma ngi dànkaafoo Birame Souleye Diop ma ngi alerté candidat yi nga xam ne moom la APR maanaam di tànn nee nañu nañu def attention bu baax a baax képp xam ne Macky Sall na la maanaam bu lekkee ci mooma journal bi nee na Birame Souleye Diop daan wax ne en lu jëm ci wàllum posone la loolee la yéen kaay gi di réew mi ko dëjee xëy xibaar naan ñu wolof nee daw bi ngay ami tànk ñi nga xam ne waa parti socialiste ñoom na du Assane Samb ci biir journal bi nee na mbetteel bu rëy moom la majorité bi am ci dogal bi nga xam ne Macky Sall jël na ko maanaam majorité présidentielle dogal bi Macky Sall jël na du bokk ci élection yi loolee mbetteel la ci ñoom waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñooy waa APR moo tax jamono ji panique dëgg moo am maanaam tiitaange moo am ci majorité bi ndax ñoom leer na leen ne dinañu am ay jafe-jafe yu métte métte ngir na gañee ndax ñoom bi fi Macky Sall yi nekk sax élection yu ñu mujj dem bëri na ci ay localité yoo xam ne benn bokk yaakaar daf ko ñàkk rawatina nag bu dee Macky Sall bokku ca jamono ji mën nañoo wax ne maanaam moo am ginnaaw bi Macky Sall jëlee ab dogal nanu bokk ci yi ndax dogal bi Macky Sall daf cee waroon a waxtaan ak waa benn bokk yaakaar te am na ñu bari ñoo ne la ñu ci maanaam mbirum trahison maanaam mbirum wor la ñu ci gis de respect ak manque de considération mbir mi dina jafe lool ci ñi nga xam ne ñooy waa coalition benn bokk yaakaar Assane Samb journaliste analyste politique moo xëy di ko càmbara yéen kaay gi di na lu ko doy sëkk ana nan xam ne daf koy wuutoo Amadou Ba gars yi koy tudd lu bare bare waaye nag des na ñeneen ndax ko ci mel ni Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye Arouna Mohamed Boun Abdallah Dionne ñii tamit ñoo ngi leen di tudd journal bi di direct news nee na ci guddi gisante ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ngir nag ñaan ko ndigal ngir a bokk ci yi nga ne moom la ñu dëgmal waaye nag Macky Sall bu dee tànn bi muy dara baaxu ci maanaam pëccëxoo gu rëy éclatement mooy am na ci biir majorité ñoom waa benn bokk yaakaar kan mooy nekk seen candidat Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba ñoo ngi leen di tudd bu baax a baax waaye na ñaar ñii ñoom ñaar seen bopp neexuwuñu bu dee nag Moustapha Ba ministre bi ñu dénk wàllum finance kookee amul expérience ba pare amul base politique la turbine yéen a kaay mooy wax yéen a kaay gi di enquête Abdoulaye Wilane bu parti socialiste moom nee na jamono ji pare na ngir nag jubóole maanaam famille socialiste yi retrouvailles socialiste Abdoulaye Wilane pare na ngir daal di koy dox maanaam mbooleem ñi nga xam ne ay socialiste lañu Abdoulaye Wilane na yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Omar Youma moom nag jàpp na ne ak xajali ko dina am ci biir Benno Bokk Yaakaar rawatina ci biir APR Thérèse fay moom jamono ji nee nañu ñoom dinañu am ay jafe-jafe ngir nag wut koo xam ne mooy remplacer Macky Sall yéenekaay gi de Libération nee na lu jëm ci wàllum jàpp farandoy Ousmane Sonko yi di leen di dugal ci kaso bi ba léegi mbir maa ngi mel ni tulleeg maxle ndax démb am na lu toll ci fukk ak juróom ñoo xam ne mandat nañ leen dépôt maanaam yóbbu nañ leen ci kaso bi mooy ñi nga xam ne tegoon nañ leen loxo cité kër góor gi ñoom Cheikh Omar Bamba Diop yéenekaay quotidien yor yor xëy dañu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ca commune bu Mbàkke ca sànc Daaru Salaam ñoom na mere nañu loolu maire bu Mbàkke di galo Ba ñoom nee nañu maire bii di Gallo Ba dañoo gis ci moom ab manque de considération amul lenn loo xam ne andi na ko ni ay njàppandala ngir na génn leen ci jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo ngi koy dundoo ndax ñoom nee nañu amuñu ndox bëri na fa ay jafe-jafe yoo xam ne askan wa ñoo ngi koy dund te gisuñu seen maire bii nga xam ne mooy Gallo Ba nee nañu timit ca poste santé ba na ñoo xam ne dañu fay dem di ay malade waaye dañuy mujjee faaltoo ay manque de moyen moo fa am ambulance amu fa insécurité totale moo am ci sanc Daaru Salaam te ñoom wax sanc Daaru Salaam nee nañu ñoo ngi fay impôt ñoo ngi def lépp waaye maire bi faali wu leen tey faali wu leen ëllëg jamono ji ñoom ci ak toroxtaange la ñuy dund yéen kaay gi di sunu làmb xaalis bi nga xam ne Macky Sall joxoon na ko mbër yi jamono xaajale na mbër nga xam ne ñoo dëkk ca diwaanu Pikine ndax Eumeu Sène ak Sokh jamono ji ñoo ngi yakkante lu mel ni musiba mbambu kumba lu toll ci fukk ak juróom ci million la ñu waroon séddoo yéen